nga woon la bokkoon taajaboon nga woon ku ne walee ci nga xale bii bëgg a xale bi Kolda la dëkk xale bii bëgg a ñëw doomi Kolda la xale bi bëgg a ñëw mooy représenté Kolda fii ci biir Ndakaaru Njaay xale bi bëgg a ñëw moom waxtaanewul dara moom dara ñoru ko lu dul yëfi xol mbëggeel rek lay waxtaane ma bëgg ngeen tàcc ko Willy Wajanga asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar tey nag dam leen di annoncer nouvelle bu ma neex mooy ni divorcé naa <laughs> oui oui eh divorcé naa je suis libre maintenant libre naa maa ngi ni eh ku ma boo leen ma waxul félicitation ma wax bopp merci beaucoup eh chance bi ma am mooy damaa xamantek sama jabar avant ñuy sëy mu nekk ku timide lool bu mu déranger kenn ci àdduna dem na sax ba balaa moo ubbi buntu frigo bi day fëgg ba pare dooru ubbi xanaa kookoo bañ a déranger eh avant ñuy marié bu ñëwaan sama kër ya du nuyoo kenn du ko dégg day ñëw nag eh, sama waa kër ñëpp naan ma taxal kii kii ku baax la kii mën na la seen waaye bu ñu marié woo ca buntu kër ga lay toll salaamaaleykum yàgg si na ah, waaye ku jël si waay nii eh, changement commencé am eh avant ñuy marié wu bu ñëwaan kër ga yëg ni sama yaay dafa mar naan wala dafa soxla ndox moom mooy demaat ba ci frigo bi fëgg ubbi jël ndànk ci buntu frigo bi lay commencer raam yow ba ci sama yaay mu suq jox ko sama yaay naan ba pare mu raam dellu waaye bu ñu marié woo sama yaay ne ko meema ndox mu naan mu ne ko tey mère waa mère lii lan la mère yow xanaa du léegi nga naan dama sonn eh changement commencé man loolu méttiwu ma de eh avant ñuy marié man ak moom danaan sañse lu dóob di xeeñ lu neex mais bu ñu marié yow mu commencé sol ay sër ak ay t-shirt Macky 2012 te naan ma eh jeeg pire jeeg pire noonu lay def et avant ñuy mario yow t-shirt lem avant marié moo dàq suba la tabaski et avant ñu marié mo t-shirt daan ah siw mais bu ñu marié yow foo toll di ko dégg way ti soli naa mais jigéen ñi lan mooy seen problème ñoom e ñan noom avant mariage yow ñan ñan e bu mu sànni sot danaan ma sama àjjana ma ne mu ne ma mouchoir ma yëkkati mouchoir jox ko e xoolal ni lay fompee ba xëy jaagar jaagar yi sànni ko ci poubelle bi ñëw ne ma merci waaye bu ñu marié yow soj du ma laaj mouchoir de faap faap pocc pompe ko ci sër bi te naan ma loo wax man ma commencé tiit ci li ma takk man waaye eh, loolu neexul de avant ñuy marié wu moom dañ daan ànd weekend daan dañ dem sali dem nañ saa yu demee weekend danaan moom weekend non slip waaw amul nalaw man damay fexe bëgg nalaw sax mu naan ma weekend non slip amul nalaw wala anglais bi waxee ko noonu damaa juum wala en tout cas nii la ma ko waxee mais bu mu sëysee vingt heures lay tëdd nalaw suma ko soxlaa tàpp tàppal ko mu naan ma laay laay la Ali yow lii du ceeb dimbali ma sama jabar man mu ne ma lii du ceeb et avant ñu marié woo xoolal bu ñu musaan andi resto bu commandé du ko sax jeexal bu ñëwee yenn si sama kër buy lekk da nga koy bëgg yow tuuti lay lekk après mu jeex mais bu mu sëy sëy lu mu togg lekk lu ñu togg mu lekk te buy lekk da ngay énervé yow coxom coxom foo teel du ko dégg coxom coxom guru coxom coxom guru man mujj gi dama naan man sax sa taxuma mbaam yow ah dama tiddi et eh, avant ñuy marié sama numéro copain yëpp la yor di déggante ak ñoom di leen woo téléphone chaque jour sama yaay tamit noonu da woo chaque jour mais buñ dañoo marié wu mu bloqué sama yaay te naan moom sa copain moom fu ñëwati ba moom dafa bari wax te beneen suñu togg mu lekk mu may tàq rek samay xarit bi avant mariage appellation bee neexoon su ma daan woon naan ma sama aljana ma naan ko waaye sama uxul ay ni ah loolu neexoon na ñu def troi mois de mariage bu woon naan moom wili nga yow ma am fu naan ko mam data yow ça am déet waaye bu defee un an de mariage saa yoo naa ma yow jox ma jox ma dépense yow damay dem fii yow jox ma lii yow defal li mu jigi su ma nee yow ma naan ko lan la saa ma ne yow ma ne ko lan la saa ma ne yow ma ne ko lan la ndeyam merci beaucoup. tàccu leen tàccu leen tàccu leen